عليه سل وسلم مع آل له وأعلى اليقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه آه، kon tey ñu ngi ci suñ juróom حديث xadis آه، xadisu tey di xadis bu ama am solo boo xam ne ki ñu ko nettali ci saxaaba yi gën a ràññeeku ci la bokk mu wax ne wa an abi isxaqa saad ibni abi waqas malik ibni uhayb ibni abdi manaf ibni zuhra ibni kilab ibni murrata ibni kaab ibni luay alqurashi zuhri ahad al asharati almashhudi lahum biljanna قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرث ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في في في, في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخل أخلف بعد أصحابي قال وإنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة muttafaqun alayh kon xadis bi ki ñu ko nettali mooy abu isxaq sayiduna saad bne abi waqaas sayid saad bne abi waqaas nag ci saxaaba yi gën a ràññeeku la bokk bokk ci waa makka doon koo xam ne mbokkum yonent bi sallallahu alayhi la nii ñu ko nettalee càllal ak askanam ci xadis bi firndeel na ko daje na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci maamam ji ñu tudde Abdu Manaaf euh, moom Saad nag yàlla tawféexal ko itam kon bokk naa ak yonent bi alayhi salaam ci wàllug baay bokk ak moom ci wàllug euh, waajuram bu jigéen ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ne waajuram bu góor ak waajuram bu jigéen dañoo bokk ci ay maam ñi ngi daje ci maamam ji ñu tuddee Kaab Euh, kon euh, moom euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk naag Saad ibn Abi Waqaas mi ci wàllug baay bokk moom ci wàllug ndey loolu tax na sax ba yonent bi alayhi salaam daan ko tudde xaala xaala bu dee ci ñun suñu waxin nijaay koy firee waaye bu dee ci arab moom xaala li muy firi mooy ki bokkee yow ci wàllu gay wàllu meen kooku lañ tuddee xaal xaal la bëgg a xaal bu dee góor bu dee jigéen muy xaalatu Euh, ba waxoon na ci wax ju yéeme joo ne doon wax ne booba dayob Saad ibn Abi Waqaas wax ne daal kii daal moom sama nijaaya keneen ko am nijaay joo mën a wane nag indil loolu kon day wane ne Saad ibn Abi Waqaas ko am dayo la yàlla tawféexal ko mu bokk ci ñi nga xam ne dafa teel a tuub teel naa tuub dugg ci lislaam bokkoon ci ñi njëkk a gàddaay itam jóge Makka dem fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Madina am tawféex itam fekke xare yépp xare badar ba xare yëpp jeex xare yëpp la fekke Saad ibn Abi Waqaas amaat tawféex yi xam nañ ne amoon na fukki nit ñoo xam ne ñoom lañ tudd al asharatu al mubashara wala al ashara al mashhud lahum bil janna fukki nit ñoo xam ne ci benn jataay yonent bi aleyhi salaatu salaam daf leen a wax ne leen ñoom ñëpp daañ dugg àjjana ñi mu ko wax ñu bari lañ waaye ñoo xam ne benn jataay leen ko wax ndaw muy fukki yooyu ba ñoo ñu am ràññeek googu am cër moom Saad nabi Abi mi ca la bokkoon ci fukk yooyu yi fukk yooyu borom xam-xam yàgg nañ koo tudd di ko lim alxafizu al araqi tudd na ko wa afdalu ashaabi nabi makanatan wa manzilatan man bishur man bushiru bi jinaani saidun zubayru saadu usmaanu aamiru aliyu bnu awfin talxatu al-umaraani saad moomu mooy Saad ibn Abi Waqaas Euh, ku dem ci toxfatu mutadarain ba ci itam sëriñ bi bi muy tudd saxaaba yi di tawasul ci ñoom tudd na al ashara mubashara bil janna yooyu kon ku am dayo la cër bu kawee la am Saad Saad na Abi Waqaas mii gannaaw bi it biñ demee ba jamono Seydina Aboubacar Seydina Omar ñooñu conseil euh, boobu nga xam ne moom lañ tegoon di diisoog ñoom ci wàllu mbiru doxalin yi moom ci la bokkoon ndax yàlla defoon na mu doonoon ku amoon xel doonoon ku ràññiku ci xalaat yu rafet waaye itam doonoon ku baax ku sell koo xam ne liñ ñett li ci moom ci ak njàmbaaram akuk dëgëram ci wàllu diineem akuk lislaam jaral ko ak dëggu gum woon ak dëddu àddina ak woyof torox toroxlu liñ ci nett lu bare bare bare bare la loo xam ne day tegtale ne boroom cër la woon kon njàmbaar gi moo tax ñu daan ko tuddee farisul islam gawarug lislaam ndax moom mii Saad ibn Abi Waqaas mooy ki njëkk a tuur deret ci lislaam deret yéefar mooy ki njëkk a sànni ab xeej itam ci lislaam ay ay yëf yu bare bare la def ci lislaam ay jàmbaar yu kawe kawe kawe yonent bi aleyhi salaam ñaanaloon na ko allahumma saddid ramyata wa ajib daawata yàlla yàlla na nga jubal am njamam te nangu ak ñaanam moo taxit taxoon na yàlla defoon na ko ku doonoon ku nangu ñaan koo xam ne lu mas a ñaan dañ dañ koy gis ku yàlla defoon defaloon jagle la euh, ci xare yi yonent bi aleyhi salaatu salaam yi itam ci mbaaxam ak bëggam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tax na danaan ñëw di ga di garde yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ngir bañ benn noon di ko doxe gannaaw walla di jéem a ci moom dara kon ku ama am cër la bu réy réy réy ci ci lislaam moom Saad ibn Abi Waqaas moomu nag moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bokk gi bokk ci fukk yooyu nga xam ne ñooy ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaam seeral na leen dugg àjjana loolu rëy la ndax mooy ñooñu moom seen mbir jeex na maanaam daara dootu leen yàqal ñoom moom dugg na àjjana ba noppi diiru ñu des ci àdduna it dañoo mel na ñu fi des nii rek waaye moom dugg na àjjana ba noppi waaw ba moom mii gannaaw yonent bi aleyhi salaam nekkaat na fi def fi ay ay jaloo rek yu bare bare bare bare ci jamono yi ñoom Seydina Omar ak yëpp ba ba gannaaw bi ñoo ñëpp bàyyi nañ ko fi ba jamono yi Marwaan ibnul Hakam ci la génn àdduna ndax nekkoon na fi sax gouverneur Irak moom mii euh, gannaaw bi nag mu mujj ñëw sanc lu mel ne ab dëkk daal wala nuñ ko mën a waxee ci ma Madina nga xam ne foofa moom fa la nekk ba ni mu génnee àdduna bi mu génnee àdduna nga xam dañ koo yanu indi ko Madina marwan ibn al xakam jullee ko ndax moo doon kilifa gi ña fa nekkoon ñëpp ci ñu baax jullee ko ñi bokkoon ci waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay soxnaam ña fa desoon itam bokk ci jullee ga ndax moom mii itam Saad ibn Abi Waqaas muhaajirun yi jógoon Màkka ñëw Madina mooy ki ci ki ci mujj faatu ci Madina ku ama am cër la ak dayo nee na euh, ci atum xajatu widaa te mooy at moomu nga xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa ji woon ajam gu siiw googu nga xam ne moom lañ tudde xajjatul widaa wala wadaa fatxa ko wala kasra ko xajjatul widaa mooy aj moom li muy firi mooy ajuk tàggatoo gi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jullit ñi bari na jullit ñoo xam ne keroo lañ ko mujj a gis gisaatuñ ko ba nii ndax bam fa joge xam ngeen ne ba madina abdir bu neew la ci rek daal di làqu aj gi wer yi ñu aj la moy ci tabaski ta ci benu gam rek ci la génn kon moy digënté bu gatt la fi defaat génn àdduna aj am dayo lol am am yu bari yu ci xew mom mi lo tañu ko koy tam hajjatul islam ndax aj la go xamné ku gëmut yàlla bokku ca xam nga aj màkka moom lu fi jiitu lislaam la lu yàgg la lu yàgg am ba jamono yonent bi aleyhi salaam ñi doon tonni julli sax dañ ko naan dañ ko naan def waaye aj gi nag mooy gi nga xam ne moom at moomu jullit ñi kese ñoo aj ku bokkut ak ñoom bokk ci moo tax ñu koy tudde xajjatu islaam ak yeneen i tur yu bari yuñ koy wooye nee na nag ci at moom mii nag ci xajjatu weda gi bi ñu demee ci aj ga nee am na wéradi gu metti gu ma daloon ba yaronte bi alayhi salatu ñewoon set sima euh neena na bi mu ñewé set sima mané ko yow yaronte bi yalla bi day gis nga metti du tar wi may jankontel ta man day am alal ko am alal la waxi ñu ko waxe ci arab des ko wax mukk ci luddul ko xana ko am alal la ju bari waaw ko am alal laa te awma kenn ku ma war a doon ci jege yu jege yi rëkk lu dul jenn dong laa am doom jigéen jooju wax nañu Aïcha la tuddoon jamono jojo itam nag moom rek la amoon ci doom waaye nag ginnaaw bi moom xam nga nee naa ne léegi dafay lu yàgg ba ginnaaw bi moom amaat na ay njaboot yu bare bari macha allah mu daan ne ko jenn doom dong laa am ci ñi nga ñomay don ñu may ñoo ñu rek ñu tuddee ashabul furud ta xam ngeen ne dom ju jigen mom nisf la yam xajo alal kon du mën a jël alalam lépp mu ne ko afa atasaddaq bi sulisay mali xana kon ndax duma xaj sama alal ñetti xaj saraxé ñaari xajé joxé ko ci yoon yalla saraxé ko wala ma denkané ko ngir ëllëg ma génne aduna ma wax ñuñ mako joxal liñ wasiya nee na yonente bi aleyhi salaatu salaam ne ko déedéet déedéet mu ne ko kon ma ge ma ma ma genn wàll gi mu ne ko déedéet nee na mu ne kon teema koo xaaj ñetti xaaj saraxe benn xaaj bi mu ne ko ah kay benn xaaj moom baax na ceer bi daal sulus bi benn xaaj bi mu ne ko benn xaaj moom baax na doy na wala sax boog ñu ne daa jubloo wax ne benn xaaj bi mooy li lislaam nangu mooy lu diina nangu al mashru' as sulus daan na ko tax nag benn xaaj boobu nga wax ci ñetti xaaj yi lu bari la walla cër bu doon la daan na ko tax sax daal xamal ne nag nga faatu wane gannaaw bàyyi fi say ndono ñu donn la lu am solo ba man caa euh, tàggantikoo mën a amee lu luñ mën a dunde man caa am lu luñ mën a taxawoo seen bopp moo gën fuuf nga bàyyi leen wan leen gannaaw ñuy wéeru ci nit ñi ak di tàllal nit ñi loxo ak a saraxoo ka sàkku ndimbal ci nit ñi loolu moo gën fuuf loolu kon bind ngi ci daal na ko tayit xamal ne amut lenn looy joxe ci xeetu joxe looy joxe looy dépassé lenn looy dépensé daal looy joxe te jublu ca jëmm yàlla ak tuyaabaam ak ngërëmam lu dul ne des na la ca fay tuyaaba ne ko ba ci sax ñam wi nga jël leel ko sa soxna sax boo ci jubloo yàlla yàlla dana la ci fay tuyaaba daan ne ko nee na ma ne ko yow yonent yàlla bi ah ndax kon gaa yi dañu dem mbàyyi ma fi daa wéra xam nga ñu nekk ci aj gi aj gi moom mi ngi jeex ndax euh, jahna na mu ne ko kon ndax dañu dem bàyyi ma fi sama euh, wala boog ndax boog kon man dañ ma fi dañ ma fi badal sama gannaaw gaa yi ma àndaloon nee na mu ne ko yow day deesu la fi bàyyi wutal la fi lu dul ne da nga jëf-jëf ju baax joo xam ne da nga ci jublu jëm yàlla ak ngërëmam lu dul ne loolee boo ko defee da nga ca dolli koo ak daraja aku ko sa dig ak sa borom manam sak dess gannaaw njariñ lay doon ci yow ndax da nga def lu baax te lu baax la ngay def lepp loy dolli ko lay doon ngeureum ak daraja ak ko sa dig ak sa borom tayit man nga am sax far manes na yaakar yalla bàyyi la fi nga dundat fi lu bañu bari jariño ci yow ñeneen nit loroo ci yow loolu wax ji yéeme la ndax fii yonent bi aleyhi salaam dafee xibaar lu ñëwagul dafay xibaar kumpa gu ñëwagul ndax lii mu ko wax nii noonu nii la amee tudd naa léegi ne nekkoon na fi gouverneur Irak gannaaw bi lu yàgg ba ay mbooloo duggee ci lislaam jaare ci loxoom jariñoo ci moom lu bari ci lislaam kon jariñ na ñu bari waaye ñu bari loroon nañ ci moom it ndax def na fii xeex ak ay yoo xam ne ci lislaam du mën a ay yéefar yu jeex rey ñu dul jeex kon jariñ na ñu bari lor na ñu bari itam waaye lor ja du lor yi lor ji ñuy wax waaye yi ñoo xam ne moom la leen dal ci loxoom la jaare ñoom nag ñoo nekk ci yoon yonent bi aleyhi salaam daal ci teg ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga wéyal sama saxaaba yi nga wéyalal leen seen seen gàddaay te bañ leen a loo bañ leen a delluloo gannaaw daan ne waaye daal ki mbiram metti rek daal ki mbiram am jafe-jafe daal ki mbiram metti daal ki mbiram tiis mooy saadu bnu xawla saadu bnu xawla te saxaaba yi la bokkoon saadu bnu xawla sa tax yonente bi di wax ci moom lii ci xadis bi dolli nañ ci wax ne euh, yonente bi sallallahu alayhi sallam da koy tudd di wane ñeewantam ci moom ak yërmaandem ci moom ndax Saad li ko dal dafa metti ndax dafa gàddaayoon jóge woon Makka dem Madina ginnaaw bi mu ñëwaat Makka far yàlla dogal mu génn fa na te loolu lu metti la woon ci saxaaba yi maanaam ndax loolu xam nañ ne nit fu mu gàddaaye du bëgg moom bu fa dee delluwaat tam du bëgg moom faatu di ko fekk waaye moom far mu delluwaat fu ba yàlla dogal mu faatoo fa ba jajj ko fa waaye loolu firiwut ne Saad ibn Xawla tuyaabay gàddaayam day yàqu wala jëfam jëm jëfoon yàlla da koy sànni wala nangam déet déet déet waaye rek loolu mettit lay doon wax ne ku nekk ci moom lay doon tayit ñi ko xam ñëpp danañ ci am tuuti ñugg ñuggi xool ndax danañ xam ne doon toon bokk ak la ko gën a loon ci bu doon tànnal boppam kon xadis bi ñu ciy jànge ay mbir yu bari la ci jiitu mooy solos sellal te yàlla tax mi nga xam ne mooy bunt bii nga xam ne ci la ko imaam Nawawi rotale ta loolu feeñ na ci li ko yonent bi alei satu wax ne ko doo jëf jënn jëf jum mën a doon jublu ca lu baax ak xeetu jëf jum mën a doon jublu ca tuyaaba yàlla ba ci jëf yu dagan yi sax borom xam-xam yi bu ñuy sara hadis bi dañ koy misaal ci ne ba ci ay lekk ak nelaw ak naan ak yooyu yëpp ci la bokk lekk gi nit ki lekk ngir jublu ci am lum dëgër la ba mën a topp yàlla nekk ci lu yàlla bëgg moytu lum tere lekk googee tuyaaba la ciy jëlee loolu yaakaar naa waxoon naa ko fi ci gannaaw ba joxe won fi misal ci serigne bi radiyallahu anhu nim di faral di soñe ci mbindam lolou muy tudal mubahu salihul muslih lu dagan lu bax luy baxal ci nuñ ko wara fexé ba di ko diko di ko mu bañ di ñu recc ndox yi ñu naan ñam yi ñu lek ñu bañ ko lek non rek muy aada wala naan ko muy aada rek waye ñu yéene ci buñ ko jëfëndiko ba man ci amé tuyaaba non lañ ko waxé tam ba ci nelaw itam nit ki buy nelaw misal nelaw beccëk ñu bari ci ñun tàmm nañ ko aadala ci ñun ñu bari nelaw ba bëccëg booy nelaw ba bëccëg nga yéene ci nelaw loo xam ne dana la may ak cawarte boo jógee ba mën a topp yàlla ñu baax ña sax dëgg moom dañ ci daan yéene leneen ñoom dañ daan yéene ci bu ñu nelaw bëccëg ngir mos as nelaw soo xam ne dana dana mën a wecc lu bari ci guddi gi ndax nelaw yu bëccëg 15 minutes donc boo ko ci nelaw mën naa wecc lu bari ci guddi gi waxuma la waj nelaw lu mat une heure de temps moom mën naa wecc baras guddi gépp bu ko defee dana tax ñoom bu guddee dañu fanaanee jaamu yàlla bët set bu bëccëgee ñu nelaw as ndiir soo xam ne mën a may kàttan bu guddee ñu mën a fogaat kon lu nit ki def ci lu baax lu mën a doon mu yéene ci tuyaaba yàlla dana ko kon sellal la ngi noonu ak teewlu yéene solom waaye xadis bi dañ ciy déggee ne kilifa war naa woyof diggam ak ñam yilif war naa amug yëgit diggam ak ñam yilif ndax looloo andi yonente bi alei salatu wasalaam jog dem di seeti saad ibn abi waqas ci wéradi gu ko dal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nim tollu waxuma la sax nim tollu ci yàlla kenn waxu ko moom waaye ni mu rek ci cër booba maanaam bu doon jamono ji du des ko nattaleeg président de la république ndax président de la république moom am réew dong la def yonente bi alei salatu wasalaam booba lim yi def ëpp nam réew booba ab ab empire la def lim yi def ay réew yu bare ci dugg jëmm joojee jóg di seeti nit ngir wéradi loolu réeréeree la loolu ab bind la bu mag a mag lii nag ñu baax ñi noonu ñu ko daan jëfee Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ñi ngi nettali euh, loolu bari na ay xissa yu bare bare bare bare bare xissa boobu ñuy nettali kenn ci mag ñi damay bañ a tudd tur koo xam ne day wax ne euh, daa bokk ci ñi jegoon sëriñ bi waaye bis mu mu xaw a jagadi jagadi ko jàpp ko ba tax moo am ay fan yoo xam ne ñëwul ci jàkka ji te sëñ moom jàkka ji da ko daan bàyyi xel ci kum ciy gis sëñ Abibu Mbàkke radiyallahu a daay nettal ne sëriñ bi moom ku mas a xàmmee ci sàppes kanam si jàkka ji nit du ko wax ci yow lu mu déglu noonu noonu la meloon bi mu bi mu bi mu gisee ne xeeñtu na ko ay fan gisu ko rek sëñ bi biñ bi mu laajee ñu ne ko dafa dafa jagadi sëñ bi jógal boppam dem di ko seeti ci loolu njaarim la woon ak booba nim nim nim nim xateeg nim mel waaye ndeysaan bi mu yegsee ba dugg si ci néeg bi rek kooko bi mu ko yëgee rek xaal ji jàpp ko ba tax mu ne bëreet jóg di ko gàttandoo sëñ bi dal ci kawam ok dal ci kawam ne ko diw lii kay ba nga xamee ne man nga ko waroon ngaa jóg boo déggee woote bi yàlla ba nga wujji ko <laughs> loolu moom leneen la waaye li li ma soxla fii mooy woyof gi ak yëg gi ba ci ñim jaboote muy jóg di leen seeti ñi mën a seeti boppam mu leen di seeti ku munta seeti ñi soreeg yooyu ndax moom booba dañ koo téye ci barab munta jóg dem fu ko soob ñi munta seeti barab dañ daan yabal ay nit ñu ñu leen koy ñu koy seetali ñooña loolu sëñ bi lu ñu xam ne ci moom kon woyof googu ak euh, rafetu jëflante ak yëg gi xadis bi dañ ciy déggee itam ne ku wéradi liñ koy tare muy wax lam yëg ci wéradi loolu mooy ca anam bu dee jàmbat la ci jubloog euh, bari njàngat yu metti yu bari waaye bu fekkee ne daf koy wax ngir jublu ca ñu ku xam saafara sa wax ko ko mu mën caa saafarawu wala wax ko ngir ku ko mën a ñaanal ñaan gu yaakaar yàlla nangu ko wala yu mel noonu boobaa amul benn wala xeet yu mel noonu boobaa loolu amul jafe-jafe looloo waral moom Saad na bi Waqaas mi muy tudd Yonent bi alayhi salaam li muy yëg ci aw aw mettit ak wéradi xadis bi dañ ciy déggee itam ñeewant ak yërmande ak yéene ji war a am ci ay donoom yéene leen yéene ay donoom ba bu mu jël alal jàpp na da koy war a saax-saaxee wala pasar pasare ko ngir ñàkk yéene ay donoom wala nangam loolu itam dañ ko ciy déggee ndax li mu ko wax ne ko say ndono nga bàyyee leen luñ mën a donn loo xam ne dana tax ñu mën a am luñ doyloo ba duñ laaj nit ñi moo gën fuuf nga bàyyi leen nga bàyyi leen yoruñ dara ba tax ñuy wéru ci nit ñi ak taalal seen loxo nit ñi hmm. dañ ciy déggee itam ne jokkuk bok ak defarub diggante ci bok lu baax la waaye ci biir baax gi baax ña gën a jege ci bokk ñoo gën a yay ña gën a sori nit ki ñi mu am ci ay doomu boppam ak ña gën a jege daal ñi gën a gën a ñëpp la war a defal ñëpp la war a yëg waaye ñi gën a jege gën a gën a sës ñoo ñoo war a jiitu ñu koy topp comme ku gën a sori ku gën a sori ba fu mën a yem dañ ciy déggee itam nag ne dépensé gi nit kii dépensé ci njabootam alal ak xeetu dépensé gu mën a doon saa yu si jubloo jëmmi yàlla dana ci am tuyaaba joo xam ne mën naa kawe jortam loolu itam lu mat a bàyyi xel la dépense yi ñuy dépensé njaboot yi ñu bàyyi ko xel ndax bi seen nga xëy joxe dépense wala nangam waxtu yi nekk kenn ñëw laaj la kii ñëw laaj la saabu kii ñëw laaj la omo kii ñëw laaj la nangam kii ñëw laaj la nangam ngay génnee joxe rek te doo ci yéene dara boo muy tuyaaba ji mën naa néew di ci fas baax na ci di ci fas danaa tax bu ëllëgee tuyaaba ja mën naa kawe lool xam naa mën nañoo tënk foofu kon ba beneen ak jàmm insha allah hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ما آل له وأعلى اليقين